أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيشها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الذي قد ستر ما علي بي وكان لي ونصره xamdan liman jaala fi lkalaami mithla milanahu fi tiaami alhamdulilahi xamdan kathiran tayiban mubarakan fii mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki Touba Lambaye safinatul aman ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay wi leen suñu boroom jox di leen amoon mbégte ak kontante di leen dalal ci atub daairatul matlabu shifa yi Touba Ndioum ci njiital jawriñ fiñ Mouhamadou Ndong ñoo ngi leen di sant bu baax di bég ci teewaay bi di kontaan lool di nuyu mbooleem koo xam ne ni rek bokk na ci safinatul amaan muy góor jigéen mag ak ndaw ñi teew ak ñi teewut ñépp ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax di ñaan yitte jéeg ji ngeen ñëwee fii yàlla na ko suñu borom def muy aw yiw yàlla ko suñu borom def muy barke yàlla na ko suñu borom def ëllëg mu bokk ci fiin tuyaaba yéen suñu borom di dencal barke bi Ahmadul Xadim ginnaaw bi ñu leen santee bu baax a baax a baax di rafetlu li fi jaar ci njàngum xasida yi ak waxtaankat yi ak euh, suñu mbokk suñu Moussa mii li fi jàllale lépp yàlla ko suñu borom defu yiw def ko muy mbooloo moo xam ne yàlla suñu borom dañu koy nangul ba ëllëg bañ jàkkaarloog feewul xaddim waaye tamit ñu xam ne mbooloo mi nii rek lay demee ñoo ngi santaat bu baax di sant tamit suñu mag yi pàkk bi nga xam ne tamit ñoom lañu fekk fi wax leen mbir mi depuis ca deux ba léegi na ngeen xam barab bii dañ koo baare oto mënu fee dugg oto mënut a génn loolu tamit ñoo ngi leen koy jéggalu bu baax comme ni ko sëriñ bi doon jéggaloo ca borom xam-xam ya muxtasiran li kulli xeer bi fii xadab abiri nax yu xaaroo di wax adab sogom jéggalu mag di suñuy kilifa bi ñëwee na dañoo soxla barab bi da ngeen di ñu barab baangoog depuis deux heures ba léegi oto duggut oto génnut xam nga ne fii moom baraw dugg la ak boobu génn kon nag ñoo leen ko jéggalu bu baax a baax a baax a baax ñoo ngi leen ko jéggalu bu baax ci ngeen nungul ñu ngànt loolu li mbokk mi waxoon sàng rek ci ay kàddu mooy ne mag ñi moom dañoo liggéeyoon ci làmbaay ci dañuy wax ne ku yokkut yaa wàññi kon day fexe day day yitte di pas-pas ndaw ñu fexe ba marqué seen jamono ci liggéey bi fi mag ñu baax ñi bàyyi woon muy Cheikh Babacar Cheikh Aliou ak suñu Mor ñu fexe ba ñu ndaw ñu teg suñu tànk alxuraan moom dañoo jàjjloo waaye dañoo soññaloo dañoo wax ne tilka ummatun xad daxalat laha maa kasabat wa lakum maa kasabtum wala tusaloona amma kaano yaxmaloona seen i bàyyi ak seen maam ñoo ñu wëy nañ lañ jëfoon ñoom lañ ñeel yéen li ngeen jëf yéen lay ñeel kon lu ñu defoon ci lu baax rek ñun nañ xam ne ñun ñoo ko moom waaye ñoom seenu sas ak seenu tool bay nañ ko mu bokkaat ci liggéey yi nga xam ne tamit daaira yi dañ koo taxawee ci péncum làmbaay gépp nga xam ne seen liggéey damay li nga fi sampuwaat ak li nga fi liggéeyaat damay wax ne ginnaaw bi ma ngi jàllee jaaratu ci loxob kenn ku dul daayira yooyu ci la ndaw ñi tàggatoo ci lañuy ñuy commencé di ndam ndabi ci xam-xam ci lañuy ñuy it ba fu ñu mën di nekk di bàyyi xel ci liñ bàyyi ginnaaw xam ne dëkk sàngam laa dëkk waaye tamit daayira sàngam laa bokk loolu yi liggéeyu daayira bi mën na ne lépp lu gën a yaatu wala lu baree bare lu ci yaatu ginnaaw bi mag ñoo jàllee ginnaaw yàlla ak njàpp na rek sëriñ baak ñoom seen baax ñoom daayira yi ñoo ko doxalaat nañu xam ne tamit kon lii it mooy suñ mbégte waaye tamit lii mooy suñ jàmm ca mooy suñ àndandoo kullu xisbin bi maa la day him farrixuuna alxuraan nee nag bépp kuréel bu nekk lañ féq ay seen mbégte bërikat yi dafa naa ne organisation ay bëre ak i làmb mooy seen mbégte moo taxit loolu lañu mën a teew waaye fubalkat it kasaalika ndaka noonu mbooleem xeet woo jël rek ak yëngu-yëngu bu nekk ñoom loolu mooy seenub yëngu kon tamit ñu xam ne ñu nit lii suñu yëngu ca boole ñu mooy xasida yi ak fas yéene tamit lislaam jooju fi mag ñu bàyyal ñu teg ko ci yoonu wér te ko ci am njàng ak xam-xam bu leer ca bañ koo teg ci làmbatu akuk lëndëmtu ndax yooni kat na ñëpp xam ne lu méttee méttee métti la waaye tamit ku dëgurut bopp amoo pas-pas mbir mi moom du mbir moo yëngu ndax dangaa fekk loo xam ne nii dafa sax nit ñi ak tayal na ci seen xol aku bëgg àdduna aku ñëpp daw riir fi jëm ci benn barab muy ndakaaru ba pare bu ñëwee it duñu xool model waaye modd la ñuy xool te ndaw ñooñu képp ku yàlla boole ñoom nga jiite leen ndaw loo xam ne ne xamut modèle modd la xam kooku am nga coono bu rëy ngir ab liggéey ngir fexe ko orienté ndax li leen fëkk di leen jël ab xew-xewle door rek lu xew ñu nekk ca nit moom bu toppee modèle moom day mel ni xobu nekk ci biir ak saaxur rek fu ko jëlee fu mu jógee rek bu ëllëgee mu dal fee te ñooñu la suñu borom boole it jëwriñ ju nekk ca dëkk ba mu nekk moom it dajaa am pas-pasu liggéey ca loola. mooy loolu tamit xam na ne daayira yi def nañ ci seen kattan bu baax a baax a baax a baax ndax am na ñoo xam ne bu fekkee ne doonte nag ndaje yi ak daayira yi bu ñu yëngu ci xam-xam duñ mën a jàng day sëriñ bi duñ mën a jàng alxuraan kon tamit loolu daal nañu xam ne mbooloo mi it ñi ngeen fekk fi. muy waa matlabu chifa yi Touba Ndioum ñoom it seen mbokk nawle it fekk si leen ci kàddoog jëwriñ yi fi jaar kàddu googu it suñ jëwriñ jot na ci mbooloo mi danañ ci waxtaan mbooloo mi danañ ci tënk lépp loo xam ne tamit ndaje moomu laaj na ko rek ngir mbooloo mi tamit ànd caag mbooloo mooma bu soob yàlla loolu lu ci tënk rek ci jëwriñ ji dana bàyyi ko ci moom ñëw ci yéen ñun nag ay ndaw lañu ñu xeebu ñu gàtt xam-xam ñoo xam ne nii boroom xam-xam amu ci borom pas-pas amu ci xaj na yit suñu suñu borom boolee ak yéen pas-pas boobu ak xam-xam boobu it suñu borom mën ñu ko yokkalal kon tamit ñoo ngi leen sant kàddu yi nii lañ ko jëruñ waxoon ñu àggale ko ci biit wala ci mbooleem ñi fi teew ñëpp di safinatul amaan Touba Lambaye niñ ko waxoon rek. ñoo ngi siyaar ñëpp ku ñëw ak ku ñëwut mag ak ndaw ñëpp ñu ngi leen bàyyi xel ci mbégte mii tamit ngeen ñu fi siyaare see fekk suñu fi ñëw tamit nañu ci aw yiw lañ bëgg waaye dañoo bëgg tamit yéen ngeen ñëw ci yiw yi loolu tamit gëm naa ne ku yéene sa mbokk jullit lu baax rek moo ko mën a def kon loolu tamit ñoo leen ci sant di ci gërëm bu baax di ñaanal tamit jëwriñ ji taxawal liggéey bi ak ki ko xelaat suñu borom kàttanal ko ca dëgëral ko ca may ko tawféex barke Seexuna Ahmadul Xadim kon kàddu yi moom guddi na ñu wàcce ko foofu di sant ñëpp bu fekkee na jëwriñ amul lu mu ci yokkaat ñu ñu tënk ko foofu incha allahu taala ñu fatlante bu baax kon nag na ngeen xam ne ndaje mi kontaan nañ ci yàlla na ci yàlla suñu borom kontaan ndaje mi kontaan nañ ci yàlla na ci Seexul Xadim kontaan wàccal xuloo bana ala tawaadudi bila tanaasun wala taasudi waaye tamit la wax la waxoon ne wa an fili nafa makaana durri wa an fili xayra makaana farri wa an fili ilma makaana jahli wa an fili jooda makaana buhli wa an fili qinaa makaana alfaqri wa an shili shukra makaana kufri wa fi jamii al muslimina ajila summa xihim xawfan wa ajila loolu yàlla na suñu borom defal noonu ko sëriñ bi ñaanale yàlla na loolu lépp yàlla nañ ko suñu borom sa mbaxtal ci biir mbooloo mi ba loolu lépp yàlla nañu ko suñu borom kàttanal may ñu ko dolli ñu ko barke Seexul Xadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu